Serigne euh, Ahmadou Sène maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ma sœur voilà Serigne Ahmadou Sène nga nekk euh, secrétaire euh, chargé de la communication de lu l'UJTL mm-hmm. au niveau du parti démocratique sénégalais euh, temps yëpp nag ñu ngi wax ni Karim may Wade mu ngi pare euh, dellu ci Sénégal est-ce que lu ni mel da koy dëggal waaw wala déet. waaw ñu ngi koy dëggal bu baax ah parce que nag umpale wu ñu ngi presque à quelques encablures de l' élection présidentielle de deux mille vingt quatre donc euh, Karim Wade nekk suñu mbër ñun waa parti démocratique sénégalais euh, ñu nekkoon di def benn liggéey bu mucc ayib donc sur le terrain pour préparer vraiment ñibbu seem ak nekkub candidat am incha allah donc ci élection présidentielle bu deux mille vingt quatre donc ñuy wax ne loolu nekkatul secret Karim exactement incha allah ci kattan yàlla ak mbaaxam bëgg nañ donc mu ñëw dans les jours les meilleurs dans les Ah, Ahmadou yàgg ngeen ñu ko wax waaye gisuñ ko de. waa bi yoon nag am na ñu yaakaar bu baax a baax te c'est presque confirmé que incha allah Karim waa dina dina ñëw ci kattan yàlla ak baaxam. Euh, naka ngeen di préparer foofu ci parti démocratique sénégalais élection présidentielle bu deux mille vingt quatre naka la préparation yi est-ce que ça tout se passe bien. waaw waaw ñun nag dañuy faral di wax trop souvent ne parti démocratique sénégalais parti la bu mën bés ñun dañoo mën bés parti bu mag lañ boo xam ne ñu dañoo nekk ci. Euh, plus de cinq cent départements yi nekk euh, euh, commune yi nekk ci Sénégal yëpp astafurlah donc dans tous les quarante département départements de ce pays là PDS mu ngi fa ci gox goxaan yi gën a ndaw sax PDS am na fa donc ay base ñu nekkoon nag di remobiliser troupes yi génne woon ay cartes di ko jaay donc doon doon def donc opération de vente et de placement des cartes d'ailleurs may fàttali ne ñun ñoo ko njëkk a démarrer avant que yeneen parti yi nga mujj dégg ñu naan ñu ngi def opération de vente et de placement de cartes def commencé woon nañ processus bi entre temps ñu taxawoon defoon taxaw xaar continuer waat ko donc joxe woon deadline pour mu jeex ñu boucler ko ñu prolongé woon ko pour un mois donc jàpp leen ne le quinze bi muy gannaaw ëllëg incha allah donc ci la ñuy boucler lépp luy euh, opération de vente et de placement de carte ak montage des secteurs donc ci parti démocratique sénégalais loolu nag la tax ñu koy def mooy dañuy préparer congrès incha allah bu mag boo xam ne après renouvellement instance yëpp suñu candidat Karim Meïssa Wade donc dañ koy investir officiellement en tant que candidat en deux mille vingt quatre. est ce que Ahmadou euh, wala Bamba est ce que du ngeen ut euh, plan B wala C wala D. du fait que Karim wóorul sax mu bokk ainsi de suite est ce que yoon dina ko may mu mën a bokk c'est ça le problème. waa ñun nag ragaluñ loolu ah, amuñ plan A amuñ plan B amuñ plan C may rappeler encore une fois ne Karim Wade dara mënatu ko tere actuellement amatul dara lu ko tënk lu tere mu nekk candidat ñu bëri ñu ngi junj amnistie dugg na fi ak génn fi peut-être ak condamnation mais li code électoral wax leer na article vingt neuf moom interdiction yi nga xam ne def nañ ko nit yi nga xam ne peut-être am nañ yenn condamnation yi pour ñu bañ a mën a inscrire ci a nekk candidat mais article trente bi ci interdiction boobu ci diirub cinq ans ñu jàpp ne kon deux mille dix neuf à partir de deux mille dix neuf Karim Wade maintenant retrouvé na possibilité wu inscrire ci liste électorale en même temps donc possibilité bien évidemment nekk candidat donc dara mënu ko ko empêcher ñun amuñu plan ba A plan B plan C on a que le plan Karim Wade. d' accord kon warum waxum si bi euh, surtout dañuy wax dañuy si Karim ak Khalifa Sall euh, yéen daal jàpp ngeen ni loolu amul sens surtout si seen côté di côté Karim Meïssa Wade amnistie bi. waaw ñuy ñuy wax trop souvent ne nit ñi bu ñuy wax amnistie bu ñu wax amnistie rek ñu xalaat benn nit wala ñaari nit li may jàpp man juriste la de formation amnistie ñun ñëpp xam nañ ni ci ay acte ay fait donc lañ lañ koy tënk ak aussi ci benn période benn durer mu nekk loo xam ne aussi euh, nekk loi boo xam ne ni c'est une loi euh, qui vise une seule personne ou un individu loi la boo xam ne donc c'est c'est une loi d'ordre général et impersonnelle infraction lay ciblé aussi ci benn temps benn délai boo xam ne c'est bien déterminé mieux Karim Wade musul demander amnistie encore une fois dafa mës a bañ ñu wax waxu amnistie parce que bu boobaa bu ñu bu demoon ba Karim Wade publiquement ñu ne Karim Wade nangu na amnistie wala yu mel noonu day mel ni Karim lañ ko tuumaaloon da ko def or que Karim lañ ko tuumaaloon état du Sénégal jëm na ci côté yëpp wër pour xool ndax effectivement def na wala deful te gisuñu fenn foo xam ne nii très sincèrement indi nañ benn dërëm ne ñoom ñoo ko jëlee ci Karim Wade wala def na d'une manière définitive te Karim dafa jàpp ne il est innocent donc moom li muy demandé mooy nañu réviser waat procès am hmm. nañu réviser waat procès am setal deram c'est un digne fils Wade baayam liggéey lu am solo ci réew mi ba démocratie réew mi yegg si fii liberté yi mu xeex lu bëree bari pour mu am Karim nekk doomam tegu woon ci yoon woowu ba yegg si am at yi mu an bi yor fi responsabilité yi mu jote a yor ci réew mi liggéey fi liggéey bu mu ci ayib tey ñu bëgg ko tuumaal ci lu mel nii salter deram yàq ko après xëy benn bés rek Euh, bëgg ñu tegal fii yenn situation yoo xam ne day mel ni après lañ ko tuumaaloon dëgg la te demewul noonu donc foog mu nekk koo xam ne également euh, li mu gëm mu nekk ay principe am da koy défendre mooy ko moom ku set la ku diñ la ku ay loxoom set la dina ko won le peuple sénégalais manière bi gën a gaaw nag pour loolu nekk lu effectif mooy dafa demander nañ réviser waat procès ñu dem taxawaat tribunal ñu ñu ñu waat ko loolu nag lu neex a nangu la parce que CREI yi ba ko tëjoon <laughs> gis nga ko tey rangé ko ça veut dire dafa jógoon rek ciblé Karim Wade pour tëj Karim Wade jeex loolu xel nangu na ko sénégalais yi sax ñoo war a njëkk a wu ci ndax loolu lu fiable la woon wala nekkul woon lu fiable n'est-ce pas. voilà euh, beneen question euh, d'actualité euh, jëm ci révision exceptionnelle des listes électorales tàmbali nañ ko ci 6 avril jàpp 6 mai naka nga ko gisee parce que ñu bëri ñu ngi wax ni un mois yi dafa tuuti trop pour sénégalais yi bokkagul ci liste yi mën cee bokk. waaw dëgg la man damay rejoindre sénégalais yooyu wax ne délai bi délai bu ndaw la. ndax nag bu fekkente ne dëgg jub rek moo ko lal euh, élection présidentielle nekk le vingt quatre février le vingt cinq février deux mille seegul su ñuy ubbi liste électorale yi au moins war nañ ko ubbi ci délai bu xaw a bu ko xaw gudd tuuti et permettre surtout primo votant yi ñi nga xam ne mosuñu voté ñu mën a dugg activement ci liste électorale te loolu yaakaar naa boo ko bëggee def ci délai wu un mois fanweeri fan dana nekk lu jafe lool tey ñun ñëpp xam nañ ne réewum Sénégal réew moo xam ne nii at mu jot rek day population bi day gën a yokk ce qui implique en même temps que donc population électorale bi gën a yokku ñi nekk en âge de voter donc gën a bari tey même yoon la ñu ñu ubbi ko donc vraiment ci délai bu gën a gudd permettre ñëpp ñu mën a inscrire euh, pour waajal vraiment élection yi am nag vraiment droit ak seen ak ñu sàmm ko ci wàllum ci wàllum élection. beneen laaj euh, jëm ci affaire Hadjibou Soumaré euh, yow naka gisee mbir mi Hadjibou Soumaré bind lettre doon interpeller le président. Macky Sall ci benn supposé financement jëm ci Marine Le Pen gis nga euh, dañu ko placé woon en garde à vue mujj ga euh, ñu bàyyi ko sous contrôle judiciaire naka nga gisee affaire u Hadjibou Soumaré waaw Hadjibou Soumaré moom problème affaire am li ma ci gis rek mooy citoyen la kon citoyen yëpp euh, bu fekkante ne damaa dénk nguur suma baat sumay droit la am tuuti ci pouvoir ma jox ko donc day baax nguur googu suy doxal yenn saa yi ma laaj ko ay question ca na muy doxalee ma yaakaar man sama njort bu rafet ne ak Hadjibou Soumaré ci logique boobu rek la posé yenn question yi donc eh, la gënoon a jaadu mooy ñu répondre ko rek ñu tontu ko donc ci ay question am yaakaar naa Hadjibou Soumaré nekkul n'importe qui koo xam ne nekkoon nga fi premier ministre sous su président Wade donc jiite la commission aussi de de l'Union africaine presque depuis bu yàgg ba léegi presque diir boo xam ne bëgg naa jege fukki at wala mu ëpp ko nekk koo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne am na une certaine probité morale donc nit la koo xam ne suñ ko dégg ci ay loxo buur wala ay wax ñàkk fayda aussi euh, wax dëgg yàlla yoon la woon ñu bàyyi ko mu posé question ñu tontu ko ci question bi ci anam bu mu gën a rafete te ñu bañ ko bañ ko fitnaal donc man ñun loolu gis-gis boobu rek lañ ci am très sincèrement. Euh, beneen euh, Ahmadou ñu gis ni parti démocratique sénégalais euh, yéen da ngeen ne du ngeen collaborer ak Aminata Touré lan moo jur fitna bi am ci diggante Aminata Touré ak parti démocratique sénégalais. waaw ñun sax de bu ñu sañoon tey dootaan daanaka suñu sujet ak Aminata Touré dootul nekk sujet mais comme moom dafa bëgg a détourner opinion bi ci débat boobu concentré wax ñi ci personnel parce que buzz lay wut ku bëgg am buzz moom PDS ngay laal. moom moo tax peut-être mu dugg ci contexte ba léegi bàyyigul PDS dugg ci contexte dénigré PDS ci ci côté yu nekk ak sunu candidat Karim Meïssa Wade te loolu du nañ du nekk gulet 2012 ñoom ba ñu faloo ba tey na Touré lépp luy machination ak lu mu mën a teg pour tek ay tuuma ci kaw parti démocratique sénégalais ak ak ak ak Karim Wade euh, def na ko def na ci lu mu mën may ko may ko ko ci ndam nag xëy na peut être comme ni mu koy xaare waaye taxul mu bàyyi su demee sax ci plateau bu toogee danaa nangu na ñëpp nekk candidat ba mu des Karim Wade donc loolu aussi day wane ne très sincèrement euh, moom mu ngi tooñ mu ngi tooñ sonal nañu lool wax dëgg yàlla waaye ñu it duñ ko may nag temps de répit ndax peuple sénégalais la bàyyi mu jugé xool ndax Aminata yi ndax moom am na leçon bu mu ñu wara a mën a jox ou pas ku bokk ci nguur dem ba nguur ga presque la ca des bareetul nga laaj ci responsabilité joxuñu la ko après nga xëy bu dee ci nguur googu du yow yaa ñuy jox leçon très sincèrement ñun waa parti démocratique sénégalais. Euh, jot na nag mu bàyyi ah. Karim Wade mu mu mu mu am am quand même. Euh, léegi dernière question euh, peut-être euh, am na ñuy wax ni deal dafa am deal dafa am ci diggante parti démocratique sénégalais ak président Macky Sall lan ngay tontu ñi nga xam ñu ngi avancé deal bi Aminata Touré sax wax na ko en fait deal boobule. waaw xam nga. mooy li may wax rek trop souvent ñi koy wax ñu ci bëri dañu bëgg a détourner vraiment opinion bi ci les question de l'heure ñu xam ne nguur moo fi nekkoon bu dool doxal dem na daanaka bay mbiram di jeex si attentes yi Sénégalais yi amoon am na lu ci des lu bari bari loo xam ne nii ñeneen dañoo am yéene yi mottali ko te PDS bokk ci parti bi te danañ jéem ci côté bu nekk pour yàq deru PDS mais ñu xam ne PDS mënul nekk parti boo xam day nekk ci diin parti bu président Abdoulaye Wade jiite maître Abdoulaye Wade nekkoon ku ku am ngor ku am jom ko am yor réew mi ci yoru ci yorin bu bu rafet wut ko tamit ci wutin bu bu rafet bu jub bu metti kon kooku mënul jiite parti boo xam ne day dugg ci ay loxo mbuur wala ay ay affaire yi wala ay affaire yoo xam ne ni lu jëm ci wàllum euh, dil la mënul nekk loolu lu impossible may wax ne ay milliers de sénégalais voire même des millions de sénégalais ñoom ñoo di ñooy militer ci parti démocratique sénégalais wóolu seen bokk lool di xeex chaque jour 2012 ba léegi pour continuer di taxawal seen parti yaakaar naa du tey la ñu dugg ci diine parti yi fi nekkoon ay parti yu yu amul doole wala ñi nga xam ne ni peut-être ci ay compromis lañ nekkoon yépp seey nañ ci biir APR peut-être ñi des nekk ci opposition yépp pratiquement mën na wax ne ay parti yu bees la waaye parti démocratique sénégalais rek moo fi nekk parti boo xam ne tey la gën a taxaw donc la kenn woon mbaar mi mooy jom fulla ak fayda bi nekkoon ci militant yi te ba tey moo fi nekk kon ñu duñu dugg ci ay dil yaakaaruñ ci dil pour delluwaat dellusiwaat ci nguur. Mm-hmm. dernière question jëm ci mesure yi nga xam ni état bi jël na ko pour wàññi dundu gi euh, comme par exemple loi bi jëm ci wàllum euh, location bi ban jàng nga ci am mais malgré euh, mesure yu ñu jël dund gi gis nañ ba léegi dafa cher ban jàng nga si am Ahmadou. waaw jàngat bi ma ci am rek mooy bu fekkante ne état dafa jël ay décision jël ay mesures. day baax mesures yooyu mu taxaw ci luy tax ñu application application da doon application bu bu ci wàññi location nag jaadu na parce que ndakaaru tey métti na trop boo xoolee ñi ëpp tey ci ndakaaru ñi fi nekk ay baadoo lañ sama genre gii la ay jàmbaar yu jógee ci yenn gox goxaat yi ñëw ndakaaru di fi liggéey boo bëggee la ngay gañ ak as néew xaaj bi yëpp dem ci wàllum location sa dund ñëwagul ak la ngay yónnee dëkk ba day métti gis nañ spéculation bi am ci côté côté location tey da ngay tabax sa kër rek xëy démb euh, juróomi junni lañ doon luyee néeg tey da ngay xëy dégg ñu ne fukki junni fukki junni ñaar jëm kaw ci benn néeg kese donc loolu xel mënu ko xalaat xel nangawu ko sax du dëgg donc état baax na mu taxaw ci wàññi waaye gannaaw bu taxawee ci wàññi bi également taxaw ci teg mesures yi permettre permettre mu accompagner locataires yi eh, ba application bi nekk une application réelle donc loolu vraiment la ñuy la ñuy ci côté dund ñun ñëpp xam nañ ne réew mi métti na. Hmm. ku jàpp ne méttiwul rek xëy na da ngaa xëyul génn dugal ci sa loxo sa loxo sa poos génne joxe dépense ñiy ci kër yi sonn nañ torop jigéen ñi dem ci marché yi sonn nañ kilifa yi fayeeku weer bu ñu fayeekoo ba tas seen salaire tas ko ci dund daanaka du ko sax mate waxatuma laa ñuy dese dara donc ku ne réew mi méttiwul rek vraiment dama yaakaar ne da ngaa da ngaa da yorul yenn responsabilité yi moo moo war a mën a ko donc nit ñi sonn ndakaaru gi nga xam ne fi lañ gën a yaakaar ne tey borom barke yi fi lañ nekk sax mbedd moo romb da ngay fekk ñu jaay fonde dugg ci kër mu leeral ne bu ñu añee du ñu reer wala benn repas la ñuy togg wala ñaar maximum donc yaakaar naa ku ne réew mi méttiwul ci côté boobu côté dund gu cher ak location euh, da ngay wax donc donc donc lu la lu la neex. waaw ah, donc li ñuy ñaan mooy état quand même mesure d' accompagnement yi war ci wàññi yooyu noonu nekk lu effectif. vraiment mu mettre ko donc sur pied. Serigne Ahmadou Sène euh, mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité. jërëjëf merci beaucoup. voilà may fàttali yow yaay secrétaire chargé de la communication de l'UJTL au niveau du parti démocratique sénégalais. absolument noonu la demee la demee jërëjëf. absolument.